الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور جعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبور وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أيها الأحباب لا بد أن نعلم أن لنا ضيف كريم وكبير ضيف خط لنا رسالة حبيب إلى القلوب يحبها رسالة تحتوي كل معاني الصدق نطق بها الفؤاد المليء بالنغمات الطهر وتباريح السكينة وحمصات النجوى جاءت رسالته قبل مجيئه لأدب اعتدناه منه لكي يبين أن قدومه قدوم للخير وحضوره حضور للبركة وإقباله إقبال لليمن والمسرات أيها الأحباب إليكم نص الرسالة بقيتي الله تبارك وتعالى دانو أم غن غنو بغون غنسي gan gu màgg gan gu rëy gan gu tedd moom gan googu balaa muy ñëw daf ñu bind lettre ndax ay tegginam rek ndax yaroom pour ñu xam ne moom moo ngi waaj a ñëw ci ñun waaye ñan la bind lettre ay soppeem ñu ko bëgg ci seeni biir xol lettre boo xam ne texte bi ci biir lettre bi li mu ëmb mooy ay maanaa yoo xam ne yépp dëgg la la mu ko bindee baat ya dafa fees del ak dëggu ndax ci xolam la ko jëlee dafa fees del ak ay baat yoo xam ne la mu ëmb lépp dafa làpp dafa am dal def ci déeyoog ñun pour ñu xam ne ak dikkam jege si woon na jamono yooyu mu ñuy bind lettre bi waaye mbokk yi ci yàlla moom gan googu lettre bi mu ñu bind def ñu ci xamal ne su ma ñëwee yiw laay indaale ci kër gi ma jëm dal laa fay indaale barke laa fay indaale sippiku bàkkaar laa fay indaale waaye bu ma fa jógee ca kër googu danaa leen bàyyi ñu set wicc seen bàkkaar yëpp dama koy yóbbaale jàpp naa ne gan gu mel nii doomu ndey yi mbokk yi ku mu bind lettre ne na dama lay gane si war ngaa gaaw ci defar fi nga koy dalal war ngaa gaaw ci waaj ci préparer tase ji ak moom ndax gan gi gan gu jara teral la ayuhal ahbab yéen soppe yi ci yàlla wa ilaykum nasru risala gan gi lettre biñ bind texte baa ngi nii yaqulu hada alhabib alqadim soppe bu màgg boobu di waaj a ñëw mooy wax nee na ahibati yéen samay soppe yéen samay waay yéen samay gaa yéen samay mbokk yéen samay xarit ana ramadan man dey man maay weeru koor lan moo tax ñu tuddee ma ramadan mooy damay ñori ay bakkaar damay fekk ku fees dell ki bàkkaar su ma wàccee ci moom mu ganale ma bala ma koy bàyyi ay bàkkaaram set moo tax ñu tuddee ma ramadan ndax tàngaay laay àndal boo xam ne waa ji daf koy yëg ci biiram wala bu doon suuf su tàng la boo ci roofee lu ñu war a lekk mu ñor nee na noonu may ñoralee lekk noonu laay ñoralee yaram bu fees dell ak bakkaar moo tax ma tudd ramadan achahrul mubarak gan gi nee na maay weer wi nga xam ne dama fees dell ak ay barke bu may ñëw barke laay àndal xéewal laay àndal ndax man maay ngën gi weer weer yépp li ñuy bari bari man maay ngën gi weer maay weer woo xam ne su may ñëw promotion lay nekk benn julli boo julli doo am benn tiyaaba waaye fukki tiyaaba ngay am benn aaya alquran boo jàng doo am benn tiyaaba waaye da ngay am fukki tiyaaba dërëm boo saraxe doo am benn tiyaaba waaye fukki tiyaaba ngay am loolu moo tax man maay shahrul mubaarak maay weer wi nga xam ne man barke rek laa ëmb a shahrul karim maay weer wu tedd wu màgg wu yiw woo xam ne ci man weer wii ci man la yàlla wàcce alquran shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan lii moo tax ma tedd su ngeen xamul maay kan ci man mii la yàlla tàmbalee wàcce alquran ci man mii la yàlla yónnee muhammad ci man mii la guddig laylatul qadr nekk kon man weeru koor man may weer wu màgg ndax yi màgg yépp ci man la ko yàlla def buñ yemoon fii rek bu fekkoon ne ñetti mbir yii rek moo nekk ci weer wi kon doon na doy rek ñu woor waaye mu ne sahru sakina maay weeru dal lépp lu ñuy def képp koo gis mu ngi ànd ak dal maay weer woo xam ne samay dal day pousser nit ñi sax ñu denc seenu kàccoore lu waay ñeme yàlla ñeme yàlla mu ne léeg-léeg ma ni suux ci moom mu bàyyi xel yàlla lépp lu mu doon def daa di delluwaat am dal waaye wal waqaar maay weeru wageel ñépp a ma weg lu dul ku texee di lu dul ku nar a dem safara moo tax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne ci hadis boo xam ne yonent bi dafa dugg ci bis ci jàkka ji ci bisu aljuma di xutba si mu teg tànkam ci première minbaram mu ne amin minbaru yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñetti pied la woon bi mu tegee tànkam ci pee bu njëkk bi mu ne amin mu teg ñaareelu tànk bi mu ne amin mu teg ñetteelu tànk mu ne amin bi mu paree julli sahaaba yi laaj ko ne ko tey dañoo gis nga def loo xam ne musuñu gis nga def ko mu ne leen lan laa def ñu ne ko da nga wax amin ñetti yoon te xamuñu dégguñu ku doon ñaan mu ne jibril moo doon ñaanal ñetti nit alkande man muhammad alayhi salaatu wasalaam ma koy nangu ku njëkk ki mooy ku fekke weeru koor te fexewul yàlla baal ko kii yal na alku yal na dem safara yonent yàlla muhammad ne amin moo tax yonent yàlla muhammad mu ne fa inna shaqiya man adraka ramadan ki texee di dëgg mooy ki fekke ramadan te fexewul yàlla baal ko kii mooy ki texee di dëgg mbokk yi weer wi nee na gan gi nee na moom mooy shahrul fadila mooy weeru ngëneel moo gën ci lépp ndax li gën lépp ci weer wi la ko yàlla def ci la yàlla def laylatul qadr xayrun min alfi shahr ci la yàlla alquran muy ngën gi téere ci la yàlla def weer muy ngën gi weer ci la yàlla yónni ngën gi mo yonent muy muhammad ci la ci ban dëkk ci ngën gi dëkk muy makka kon lépp ci weer wi la nekk cépp ci weeru koor la ci la yàlla yónnee muhammad alquran wàcc ci laylatul qadr wàcc ci lépp nekk ci ixwat al iman mu ne ana sahrul azkar maay weer wi nga xam ne weeru tudd yàlla la weer woo xam ne jaam ñi dañ ma war a bàyyi xel di tudd yàlla lu baree bari sahru sadaqa maay weeru sarax weer woo xam ne jaam yàlla yi dañu war a génn ci seeni poos seeni am am jàppale seeni moroom ndax man maay sahru sadaqa boo ci saraxee benn dërëm yàlla fulandi ko ay yoon jàngeen yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam su weeru koor ñëwoon moom mooy gën a tebe ngelaw li ngelaw li li muy baax baax baax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moo ko doon gën a baax su weeru koor ñëwee moo tax mu ne man maay sahru sadaqa waaye wa siyaam wa ak koor man maay weeru koor weer woo xam ne da ngeen di war di xiif di mar sori lépp loo xam ne bànneexi bakkan la ngir yàlla subhanahu wa taala loolu mooy koor ci yéene jaamu yàlla sori lekk sori naan sori ay bànneexi bakkan ci yéene boo xam ne da nga ko def pour jaamu yàlla bi fajar bi di fenk ba timis di jot lii boo ko defee lii mooy koor lan mooy li koor ëmb mooy jëmm jëpp day ànd ragal yàlla nekkul rek bàyyi lekk bàyyi naan nopp di déglu lu ko neex déedéet bët di xool li ko neex gémmiñ di wax li ko neex loxo tànk ñuy laalaka dem fu leen neex déedéet yaram bi yépp mooy woor loolu moo tax yonent bi ne rubba saa'imin fa laysa lahu min siyaamihi illa al juu wal atash am na ku woor ba ngoon jëlewu ci dara lu dul xiif ak mar mbokk yi xool leen xiif ak mar ni mu méttee nga woor ba ngoon yonent bi nee na yow de jëlewoo ci lu dul xiif ak mar wa rubba qaa'imin fa laysa lahu min qiyaamihi illa sahar bëri na ku taxaw ci weeru koor di naafila neuf heures ba minuit jëlewu ci lu dul ay tànk yu métti kon ndeke mbir mi soo koy def na sell wooral ngir yàlla wooral ngir bëgg tiyaaba comme ni ko yonent bi waxee man saama ramadana imaanan waxtisaab ngëm na ko lal nga bëgg tiyaaba wooral ndax da ngaa gëm yàlla bul woor ngir ay nit bul woor ngir ngistal bul woor rek pour ñëpp ay woor ma woor giñ naa ne bu nit ñi woorul woon du ma fi nekk di woor soo gisee may woor ñëpp a woor rek ah bon xaw ma nu may def kon yow kooru ñàkk pexe nga woor moo tax doo am tiyaaba yow da ngay woor ba ngoon xiif ak mar rek ngay am wal iyaazu billahi yal na yàlla musal ixwaani mu ne man maay shahru tahajjud weeru naafila yenn saa yi waa orange dañuy jékki-jékki wala waa tigo wala waa wala waa wala waa daa di ne promotion moo am mille deux mille deux mille quatre mille cinq mille dix mille ñépp jënd weeru yàlla wii di weeru promotion ci wàllu jaamu yàlla kon nan lañu war a def ku daawul julli noo war a def ku daan julli ñaari ràkk noo war a def ku daan saraxe dërëm noo war a def ku daan jàng benn aaya wala benn hisib noo war a def nee nañ la loo def benn fukk lañ lay fay yonti yàlla muhammad alayhi salatu wassalaam nee na kullu amali ibnu adama lahu alhasanatu bi asari amsaliha doomu aadama jëfam yépp moom moo ko moom benn bu mu def man yàlla fukk laa koy fay ila sabu miati difin di ko defal ay fukk di ko defal ay fukk ba mu nekk ay téeméeri téeméeri yu yàlla doublé ci benn bu mu doon def qala allahu aza wa jal illa siyaama fa innahu lii wa ana ajzi bihi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na koor doomu aadama jëfam yépp moo ko moom yàlla nee na ko ba mu des koor koor maa ko moom man maa ko moom man yàlla maa koy fay man yàlla maa lay fayal sama bopp moo tax yonent yàlla muhammad ne fa aru llaha min anfusikum bi xayr won leen yàlla lu baax li ngeen yor weer wii du jaadu nit yor lu baax di ko denc tey kenn ci ñun boo doon dem barab di fa fekk ay nit wala ngay ziyaara ji kilifa sikki nekku ci ne la nga gën a rafetle la nga gën a baax le ngay yóbbu bu dee oto boo ci yoree yu bari bi gën a bees ngay yóbbu bu dee ay yére boo ci yoree lu bari li bees ngay yóbbu bu doon xaalis nga yor ci booy dem da nga yóbbaale lu takku weer wii lépp lu nit yor ci lu baax def ko war a génne lu tax yanzuru llahu ila tanafusikum fihi yàllaa ngi xool ana ñan ñooy njëkkante def yu baax jëm ci moom aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخواني ويروي كنت ندي وهم من أنا رمضان جئتكم ومعي الرحمه والمغفرة من ربكم ويا ليتك الإعضاد التي أعتقها الله من النار لإخلاصهم في الأمل وتفانيهم في التقرب وتعبدهم لينالوا رضا ربهم جل وعلا من سام أيامي إيمانا واحتصابا غفر له ما تقدم من ذنبه allahuma ijalna minhum nee na ana ramadan maay weeru koor mbokk yi mu ne jitukum dikke naa leen ñëw naa wa ma'i rahma li ma indaale mooy yërmande ku bëgg yàlla yërëm la weeru yërmande ngi ku bëgg yàlla yërëm la weer wu yàlla ëmb yërmande ngi nii yàlla subhanahu wa taala da ciy tëj bunti safara daa di ubbi bunti aljanna ndax yërëm jaam ñi ne yéen ñi doon def lu bon arrêté leen képp ku doon def lu bon amatoo droit di ko def ci weer wi yéen ñi doon def lu bon yonent bi nee na taxaw leen tey leen seeni loxo allahu akbar barki démb damay seetaan télé bi ñuy def reportage ci liggéeykat yi ak gars yi ni ñuy ndogoo ñu yegg ci benn waay mu ne non weer wi moom tuxkati cigarette yi sonn nañ ci trop waa ndaw si ne ko waaw yéen kay war ngeen profité ngeen bàyyi mu ne su man benn tàndarma taal naa cigarette bi benn tàndarma taal naa cigarette bi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yonent bi nee na yéen def katu lu bon yi taxaw leen ñi sol col gu bon ñu war a taxaw góor ak jigéen ñii déglu lu bon dañu war a taxaw ñii dem ci barab yu bon yi dañu war a taxaw jaaykatu restaurant yi dañu war a tëj wallahi jaaykatu restaurant buy jaay weeru koor doo ci jëlee lu dul weeru koor jeex nga jël ci sa alal jooju yëpp ordonnance booy fajoo la ko yàlla di def parce que du am barke benn nga faj ci sa bopp mbaa say doom mbaa soxla bu la ëpp doole yàlla ñëw boo jaayoon cinquante mille yàlla indil la problème mu deux cent mille parce que amul barke weeru koor dañ ko war a weg waaye da nga gis ay julit yuy féttéerlu weeru koor di ndekki bëccëg di añ bëccëg léeg-léeg sax nga gis borom kër goo xam ne dañ koy tëj ci pantare mu añ ba suur fomp gémmiñam génn te naan alhamdulillah weer wi eh, tàngaay bi metti na nañu rus yàlla nañu weg yàlla nañu am xorma ci weeru koor nee na jitukum wa ma'i rahma wal maghfira ñëw naa indaale yërmande yàlla ak njëggalam moo tax yonent bi ne shahrun awaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa axiruhu itqun min an nar yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam nee na weer wi njël benn bi yërmande la ndigg bi digg bi jéggal la su weer wi di jeex yàlla goreel ñépp ñu wooroon safara mbokk yi kan moo namm ci ñun yërmande yàlla xanaa ñun bëgguñu yërmande yàlla xanaa bëgguñu njëggalu yàlla xanaa bëgguñu yàlla subhanahu wa taala goreel ñu ci safara mbokk yi ci yàlla subhanahu wa taala mu ne aka neexoon moom weer wi mooy wax ñu préparé ñu waaj goreel sunu bopp ci safara sellal sunuy jaamu yàlla aar sunu koor aar sunuy nopp aar sunuy bët aar sunu gémmiñ aar sunu loxo aar sunuy tànk aar sunuy awra ndax sunu koor yàlla subhanahu wa taala mën koo nangu allahumma arina alhaqa haqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala jtinabi allahumma ya muthabitu alqulub thabbit qulubana ala taatik allahumma لا تجعلنا من الذين يصومون ويقومون ولم يردك يا رب اللهم لا تجعلنا من الذين يصومون ويقومون ولم يردك يا رب اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرجت ولا مريدا إلا شفيت ولا دينا إلا قضيت ولا ضالا إلا هديت ولا جاهلا إلا علمت ولا هاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها وعانتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله